gis nga ay événement ak jafe-jafe yi nga xam ne day faral di am loolu moo tax nag bu ñu gungewul nit ñi ci wàllu xam-xam ci wàllu gis-gis dafay dem ba day poser ay problème moo tax tey ñu réunir la quatorze présidents régionaux ak quarante six présidents départementaux comme ni ma ko waxee sànq ak représentate jeunes yi ak jigéen ñi ñu war leen tàggat ci wàllu leadership mais aussi boo demee ba li ñu la jox lan moo ci say lan mooy sa responsabilité ban taxawaay nga war a taxaw ak lan la ñuy xaar ci yow mais aussi nit war naa mën a def autocritique parce que yàlla rek moo mun lépp xam lépp jeexal lépp ba tax na éleveurs yi tamit am na ñu ñàkk lu leen manqué nga xam ne loolu ci seen engagement personnel loolu yëpp a ñu jéem koo identifier mais yan jalon lañu ñu war a teg aussi pour que tey mu ànd ak. li nga xam ne moom lay suñu membres yi di xaar ci ñun mais aussi ñu waxtaan tamit ci ban façon éleveur la ñu soxla pour yokk wàllu production parce que bari na aussi loo xam ne lii Sénégal da koy xaar ci ñun te gis nga sànq aussi wax nañu ne am na euh, produit soow boo xam ne bi tey Burkina Faso la ñu ko euh, gisoon boobu mu tudd gàppaal boobu nan la ñuy war a def ba yooyu dugg fii parce que dafa nekk soow boo xamante ne meew bi danga koy boole ak mil wala sorgo nga transformé defar ko ba nga xamante ne dana nekk produit bu baax te foofu boo fa demee ñi ko fa yore dafa jaay dafa am ay cantine ak ay boutique yoo xam ni foofu la ñu koy jaay te ñooñu bu ñu koy jaay meew bi du taxaw dégg nga moo tax pot bouteille yu ndaw yi di jar quatre cent francs mais bouteille yu mag yi aussi di jar mille deux cent. waaw wax dëgg yàlla ministre bi ministre bi nit ku engagé la ndax wax dëgg yàlla du politicien te moom xam-xam la yore eh, di ko ak ñun te négligé wul benn yoon suñu waxtaan ak moom li ci am solo rek. mooy que éleveurs yi aussi nañu jël suñu destin en main mais toujours ñu jël suñu responsabilité parce que nag ministre aussi du sàmmi nag yi dégg nga ñun ñooy sàmm jur gi ñun ñoo koy war a piloter de part que bi nga xam ne la ñu ci mébét ba ñu ci soxloon ñu mun ko ci am kon loolu moo tax ñu réunir tey responsable yi bu ñu demee aussi kenn ku ne la nga xam ne def nañu ko ci moom fii ñu jéem koo suttiwaat seen région ak seen département ñu wàcceeku ndax départ euh, région yi ñoo coordonné département yi waaye département yi ñoo coordonné communes yi communes yi ñoo coordonné village yi ci maison des éleveurs waaw man ba muy euh, taw bi ba muy am bu fekkee ne maa ngi bitim réew am naa ci ay information waaye bu soobee yàlla du yàgg incha allah mu wàcce ci terrain bi ba dem ci zone yëpp ci côté yooyu ma sama naataan yi ñu jéem a seet examiner lan moo fa nekk parce que li ñuy wax rek mooy toujours dañuy moytu garaawallu garaawul mais aussi ñu baaxal loo xam ne lii aussi euh, baaxul kon loolu nekk na loo nga xamante ne li incha allahu rabbi du yàgg danañu jël suñu décision ñu dugg terrain bi ñu waxtaanee ko waaye li ñu ciy wax rek mooy projet yi nga xam ne aussi nekk nañu au niveau du ministère de l'élevage loolu it ñu ngi sañee initiative PRAPS parce que PRAPS kat wax dëgg yàlla am na convention ak cinq organisations éleveurs yi te ci ñooñu aussi tey bu ñu daje bi amee parce que PRAPS moo ci jàpp moom moo ci génn ay moyen te loolu nun danañu def tout ba nga xamante ne li ñuy xaar ci ñun danañu ko gis bu soobee yàlla. naa fekk benn réunion. boo xam ne nii man ak banque mondiale ñoo ko def ci pastoralisme ñu nekkoon waak ak suñuy dëkk suñuy nattangoo lu mel ni Tchad lu mel ni Mauritanie te soo xoolee nombre de betaay ba ñu am mën nañu ne sax ni ñoom ne Sénégal du du du dëkk élevage waaye Sénégal soo gisee ne élevage Sénégal fukki kër yoo gis ci àll bi juróom dañuy sàmm donc képp ku bëgg a sénégal soo bëggee réussir di nga jàppale élevage te damay wax ma képp ku nga jënd 3000 4000 na nga pastoralisme képp ku jàpp jënd bu yomb wala xaru tabaski bu yomb wala xaru tudd bu yomb na nga sant pastoralisme tax na ba pastoralisme ak élevage Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar dama rafetlu lool su ngeen xoolee stratégie deux mille cinquante bi nga xam ne nii mooy référentiel bi sur souveraineté alimentaire président bi mu koy tudd mbay ak sàmm lañ njëkkee donc loolu moo lay wan ne la suñu stratégie souveraineté alimentaire bi ci niveau référentiel bi élevage dafa bokk ci moteur yi su ngeen ko xoolee aussi suñu PSSA bi mooy plan de sécurité souveraineté alimentaire élevage daf ci bokk bu baax a baax baax a baax may remercier aussi suñu équipe yi PRAPS PEDEPS PNJS ak FSRP bërkaati démb dañ ma envoyé benn vidéo Afrique du Sud am ay sàmm yuy ñëw di jënd ay nag ay géniteur ma gas kenn ci ñoom mu yore hélicoptère mu wàcc ma ne ah yàlla ñu yàlla démbale ba suñu sàmmkat yi di def li xam nga ismaïla mi dem ba burkina faso gis gapal bi mu naan ko mu neex mu gis nit ñi nañ koy jëlee mu ne taxal ma jël ñaari bouteille ma indil ko sama dëkk ki ambassadeur élevage ki ambassadeur élevage la dem na ba paris mu ànd ak président mamadou ba bu mu envoyé mu photo mu envoyé ma donc mi ngi ci pastoralisme bi mais mi ngi jëggaani aussi yeneen technique yu mën a améliorer pastoralisme pastoralisme muy moteur oto dina am moteur nga toog ba caag nga changé euh, carapace bi nga ne yóbbul ma ci tôlier bi ñu defal ma nii ñu defal ma nii ñu defal ma nii loolu la renforcement de capacité bi di indi dama gis benn sàmm barkaati démb même envoyé naa ko ñoom Ismaïla mu bay culture foragère mi ngi am presque 60 tonnes à l'hectare loolu soo ci amee benn ñaari hectare nga defar ko nga yar sa jur su noor ñëwee jafe-jafe mun naa ñàkk li tax renforcement de capacité bi am solo jigéen yi xale yi góor ñi mën nañoo màngi mais jigéen ñi ak xale yi toog yore kër gi mais suñu yore suñu amee culture fourragère am lu mat am jur <coughs> suñu téewee jur gi rek su suñu rattee rek transformé mën nañoo yore kër gi combinaison boobu nga boole modernisation bi ak pastoralisme foofu la élevage pastoralisme war a jëm mooy ñu boole fi jamono toll fi jamono jëm ak li ñu fi maam yi bàyyil ñu boole leen tey jii xale yi ba ngeen ñu jàng école jigéen ñi ba ngeen ñu am ay unité de transformation donc il faut cap il faut renforcement de capacité am loolu moo tax président la yow ak euh, sa sa sa quatorze euh, région yi ak sa quarante six cap euh, commune départementales yi renforcement de capacité bi dafa am solo gis naa amélioration génétique bi ni ngeen ci liggéey gis naa PRAPS jéego yi muy dox ci pastoralisme bi Gisna naa jéego yi praps di dox doc ak ak leadership bu docteur Sakho bi nga xam ne aussi maa koy gërëm di ko sant parce que yenduwul yendalul fanaanul te nax dama leen bëgg wax des fois damay patron boo xam patron bu nakari defaral <laughs> parce que li tax ma damay patron bu nakari defaral damay xool ba xool virgule bi liñ ko est ce que biñ ko fi mu nek war na fa nekk war waru fa nekk des ñu am discussion yu yu tàng parce que lii njariñ bi mooy nan la ci baykat bi war a mën a génne te su ma euh, bi nan la ci war a mën a li ci sam sàmmkat bi moo ci génne jabaru sàmmkat bi moo ci génne doomu sàmmkat bi moo ci génne njaboot sàmmkat bi tey ji bëgg nañ élevage pastoralisme bi egg foo xam ne dañuy transformer lépp loo xam ne nii dañuy transformer lépp loo xam ne nii éleveur bi moo koy bàyyil boppam moo xam soow la moo xam fromage la moo xam diw ñor la moo xam yàpp la et cetera et cetera ba renforcement de capacité bi lu am solo ñu moderniser pastoralisme bi lu am solo la damay wax souvent ma ne doomu éleveurs yi éleveurs yi ak njabootu éleveurs yi Sénégal daf leen a daf leen a daf leen a daf leen a daf leen a daf leen a delloo njukkal ba tax na tey jii képp koo xam ne nii yaa ngi lekk yàpp bu yomb wala nga lekk soow bu yomb rek merci ak pastoral mais nak jamono fay dox su jamono di dox aussi pastoralisme bi far dafa war dox ma ma ma la aussi aussi sur occasion bi pour lancer un appel pour ngeen ñu gën farlu ci vaccination bi ak marquage de parce que c'est am solo la pour moi montrer président Ismaïla je lepp lu may def def ci nga biñu vaccination bi bi équipe bi liste bi né dafa parce que dañu a Dakar dama ma yow ce représentant bi yow la mané ko Samba mm-hmm. wax ma wax

yàlla na ko yàlla barkeelal te man jortu naa ne euh, lu ngeen fi mébét yàlla dana ko barkeelal parce que mébét bu rafet la yàlla na daf ne defal li nga man ñaan ma li nga mënut te li ngeen man moom yéen a ngi koy def li nga xam ne nii bëgg nañ ko te peut-être mooy àgg gu fa walla xel mi àgg gu fa yàlla na ko yàlla mottali donc loolu laa doon terminer ci wolof bi mm-hmm. comme euh, suñu mbokk presse bi ñoo fi il faut ñu wax ko aussi ñu baamte ko ci français mm-hmm. mais demoon ne dama woon ne rek comme ñun ñi rek ñoo fi nekk mm-hmm. te peut-être français bi am na nu mu demeewul ci ñenn ñi moo taxawoon ma ne ma naa déparé ci français bi ci wolof bi en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant